kon nag mbokk ak xarit yu ni seetaan euh, ci igfm point seen lëkkaloo youtube slash tfm nuyu nañ leen di wax ni dañ leen jàmm ci seen rubrique ñokkolo kaas tey ñu ñëwaat tamit ci yeneen waxtaan yu gën a yaatu yoo xam ni aussi dañ koy àggale man ak sama nattango bi nga xam ni souvent man ak moom ñee nekkandoo mu mel ne nag ربك الله ربك لبيك لا demoon Makka yow demoon Makka demoon Makka yow kay ñu demoon Makka bàyyi la nag seen la baykat la te yow nga ñëw fi nga xam ni mooy sa émission bi lay ak ñi nga xam ñooy sa yi nga xam ni tey jii dafa mel ni namoon nan la loo leen di wax ñëpp la kooba ñëpp la kooba ñëpp la kooba ba ba la jëri borom nag ak mel man loo may wax fal ma dëgën dégg ma dëgën dégg alburi cocc Alboury Cocc kon yéen seen dëkkee càmmiñam lingeer càmmiñam lingeer waaw léegi xoolal dañ nekkoon ci waxtaan bi nga xam ne Yaxya Jóob Jóob xam ne Mouhamed Tyson waaye nag wax nañ leen ni que Tyson Bombardier moo jëloon ci moom affaire yi Yékini jëlaat ko ci moom Balla Gaye jëlaat ko ci nga xam moo di Yékini ñu dëgg waaw Yékini nag vraiment gàcce ngalaama mais Balla Gaye def na ci làmb ji loo xam ne ci dëgg-dëgg il a marqué son époque yaa ngi dégg. gën gën ko càkki gën gën ko caa gën gën ko càkki càkki gën gën ko caa. Ah, waaw boo koy bàqu. gis nga ki nga xam ne moom bomba yaa ngi ko gis nii. góorgóor gi ñëw góorgóor gi ngi ngi ñëw eh góorgóor gi ñëw góorgóor gi ngi ngi ñëw eh. waaw bomba bi 2015 boo daan ci nekk le roi des am loo xam ne dafa jafe mooy dañ doon wax ni Dakar du saf ñaari yoon waaye nag ki nga xam moo di Bombardier moom jël na couronne bi ci ki nga xam moo di Tyson jëlaat ko ci ki nga xam moo di Balla Gaye moo demee noonu ba tax na nag Balla Gaye bi nga ko perte Bombardier moo ko téye ba léegi moo ko am seen ñu ngay gis nii nag ñoo war a daje hmm, li nga xam moo di peut-être fin d'année pour ñu clarifier kan mooy le roi des arènes parce que kii nga xamante ni moo di Eumeu Sène xam nga Eumeu Sène yow xam nga Eumeu Sène Eumeu Sène moo nekk nii ah kooku nga gis nga kat kii si seen seetaan la Eumeu ki nga xam moo di Eumeu Sène nag moo bëgg a jël couronne bi yóbbu ko fi nga xam moo di Pikine waaw parce que Pikine amoon nañ ko benn yoon ak Tyson mu génn fa nee na moom dafa fay delluwaat dafa leen ko yaa ngi dégg ah? Ton téléphone est en train de sonner. Ton téléphone est en train de sonner. Il serait temps de le décrocher. Il serait temps de le décrocher. Si tu décroches pas, c'est tant pour toi. Assalamu alaikum. ah kooku. waay mën a way waay. ah Faye. Faye ñëwaat na. Faye ñëwaat na sa xarit bi ñëwaat na. waay mën a mbaar Faye. waa Dewlet ci ñoo ngi lay baal àq di la baalu àq. bal leen maa ko bal naa le yàlla yàlla boole bal. kéde yi nii wér. jërëjëf waaw lan mooy say say tànk tey. waaye yéen li ngeen di wax seen ngeen ko Bombardier fan la mën a jaar ba nekk roi ah moom duñ ko nangu. Bombardier laa la wax Yaxya Jóob Yékini daan na ko ñetti yoon. Bombardier di choc saako mu dóor ko teqtal ko mu daal di daanu ñu bëreewaat mu caxabal ko mu daanu. ñu bëreewaat li nga xam mu bet ko daal koy dóor mu daanu. kooku kay nu mu mën nekkee roi des arènes Yaxya Jóob Yékini kay bu wax wax Jóob Yékini tax yéen nag boo leen koy waxee da ngeen di fa xalaat rek waaye xam nga ni nag yàq yi jógee ci kaw wóor da koo mën da koo la mën na ko doo sa a dal la la nga daanu na ko kooku maye ndéb moo ko doon waaye ak ki nga xam moo di xale ji waa dégg nga fay moom moom Yékini la gëm Yékini lay gife quoi ah mais Balla Gaye li mu fi def yéeme na waaye ki nga xam moo di Bombardier mooy la xam moo di couronne bi mais dama la wax ne Balla Gaye moo daan ki nga xamante ni ci dëgg-dëgg ah moo gën a xarañ ci làmb ji kooku mooy kan Modou Lo gis nga Modou Lo muy Balla Gaye moo ko daan première defet moom moo ko jox ah ki nga xam moo di Balla Gaye moo daan ki nga xam moo ëpp fit ci làmb ji kan moo ëpp fit ci làmb ji kii kan la Gouye waaw gis nga baabooy mi gis nii ah ku mës a bëreet moom laa la wax reculer nga mais moom du reculer foo fekk foo taxaw mu fekk la yaa ngi dégg ah moom tamit moo daan ki nga xamante ni ñëpp ne leen mooy le maître incontesté kooku la Yékini voilà Yékini ngi ni Balla moo ko daan Balla Gaye aussi moo daan ki nga xam ni moo tax làmb ji am ay millions Mouhamed Ndao Tyson waxoon na leen ko keroog ah moom moo révolutionné làmb ji moo nekk nii kooku tamit Balla Gaye moo ko daan Balla Gaye aussi moo daan le plus grand technicien de tous les temps maanaam jël yi gën a spectaculaire ci làmb ji ki ko daan Balla moo ko daan kii kan la Moustapha Guèye ñenaa ci Guèye gannaaw ah <laughs> com Moustapha Guèye ni nii kii page yi gën a rafet ci histoire wu làmbu Sénégal moom mais ñi leen daan parce que Balla Gaye ca dëgg-dëgg c'est un champion. ton téléphone est en train de man la mbaar lay maa digal waay fay yow yow yow Asbara xam ah, nga ne Ndiokhoul dafa commencé fu naan de bu décalage laa la wax. maa xalaa yaa ko def yaa ko def di lekk di li nga xam moo di ah. pétrole américain bi nga def ni Ndiokhoul mi boo ko joxoon ci la passeport ak kàllu ndóobaat bi nga def ni def nekk di. yaa ngi man toujours bi dama mos a gis sax picc boo xam dafa amee loxo ñokolo ay picc buy amee loxo yow xam nga dañ la war a delloo ci gaaf gi dellu la fi nga xam moo di ah ndóo moo tax nga nekk ci moo ah. joxoon ci repas bi fii doo fuuy mais ma lay jox ay ay ay ay kii na waa kon nag ñox waaw dafa mel dañuy tàggatoo ñu teg suñu baaraam foofu Bombardier Balla Gaye kon dinañ xam surtout làmb ji lan lay doon ki nga xam moo di Eumeu Sène ki nga xam moo di Bombardier ki nga xam moo di Gris nag moom moo bëri Balla Gaye mais est-ce que leen Balla Gaye xam lan la def Balla Gaye dafa wut boxeur boo xam ne ivoirien la boxeur boo xam ne ivoirien la moom la Balla Gaye wut pour jàkkaarloo ak ki nga xam moo di euh, ca dëgg-dëgg Gris Bordeaux mu nekk combat boo xam ne ah dina doy waar lool lool lool kon nag mbokk ak xarit si doon seetaan teg leen seen baaraam foofu kon nag euh, fi la ñuy tàggatoo ak yéen waa mais ñoo si looy wax leen ñun caaxaan ñu de caaxaan ñu n'est-ce pas li ñuy liggéey waxoon naa trop dañuy liggéey waaw parce que laa ko caaxaan boobu da ngay ngay feesal gi ci la ñuy koral nga xam caaxaan taxu koo jóg <laughs> caaxaan tax ko jóg waaw baax na kon ñun ñu dañuy liggéey hmm? avec des menteurs qui bossent des Kayrongan qui bossent des Tagala Goy qui bossent des Serigne Ndiaye qui bossent des Ousmane Ndiaye qui bossent des des des techniciens des milliards qui bossent des dóorkatu marto qui bossent ah déedéet déedéet fii ay dóorkatu marto la gars yi liggéey yëpp kon nag gars yi teg leen seen baaraam foofu.